الله أكبر الله أكبر
mbokk yi ñu ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñëw ci sunu xutba tey bii bëgg a waxtaane tomb woo xam ni tomb jamono la waaye tomb la boo xam ni du weesu mukk jullit ñi fuñ toll di ko fàttalante ndax warugar la wu yàlla gàllu suñ kaw te suñ lislaam du wér lu dul loola dañ koo dund dund gu wér a wér warugar woo mbokk yi mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bëgg goo xam ni dafay raw ci ñun bëggu way jur yi ak njaboot gi lépp loo xam ni nit jëflante na ak moom ba mbëggeel war a jóge ci moom jëm ci loola bëgg gu muy bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam féete kaw loola yàlla suñ borom tabaraka wa taala xuppu jullit ñi ci ñu jël leneen mu gënal leen yàlla ko yonentam yàlla nee na bu dee seen baay yi ak seen doom yi ak soxna yi ak njaboot gi ak askan yi ngeen bokk alal ju ngeen fàggu njaay mu ngeen bañ mu yàqu dëkkuwaay yu ngeen gërëm bu dee loola moo leen gënal yàlla ko yonentam ak jihaad ci yoonu yàlla mu ni toog leen xaar rek ba yàlla dikk ak mbiram fa tarabbasu xatta yati allahu bi amri yàlla saa borom jàppee ku mel noonu ab kàccoor ne wallahu la yahdi al qawma al fasiqin li wér mooy yàlla du gindi nit koo xam ni kàccoor la mbokk yi bëgg gi ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa war ci kenn ku ne ci ñun ba bu ko deful ngëm yàlla am wérut yonent bi wax ni laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nnaasi ajmain kenn ci yéen du gëm lu dul fekk dama koo gënal waajuram gënal ko ay doomam gënal ko nit ñëpp waaye ku xool loolu da nga xam ñu lu war a mën a nekk la ndax bu dee ñi gën a foor ci àdduna muy waajur yi li tax ñu am dayo woowa mooy jaarukaay wi ñu doon ngir ñu ñëw ci dund àdduna bi nga xam dund kuy jeex la doon gi ñu doon sabab bi taxaw gi ñu taxaw jur ñu fa ñu war a jure yar ñu loola moo tax ñu jox leen dayo wi réew wi leen lislaam jox waaye yonent bi nga alayhi salaam mi nga xam ne topp ko nag mooy tax nit amuk teexee ci dund gi dul jeex muy àllaaxira kon wax ji mu wax wax ju neex a dégg la moo tax yàlla sama borom wax ne annabiyu awla bil muminina min anfusihim ci sa jëmmi bopp sax sa jëmmi bopp yow yonent bi moo la ci gën a yey ndax li yàlla def muy jaaruwaay wi nga xam ni ku jaar ci moom taqook ngërëmul yàlla abadal abidin jullit bi war a jaay léppam ba jaay bakkanam sax ngir aar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ni jaaduwul ci waa dëkk bi waa Madina ak li ko wër bu yonent bi wootee ñu wuute jaaduwul ci ñoom it ñuy sàmm seen bakkan ci luy lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen bopp gënal leen ba bu ci yonent bi waroon a loru ñoom ñu jiital seenu mucc ci yonent bi loolu jaaduwul ci ñoom waaye ñëpp xam nañ ni taxawaayu saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain mooy yonent bi dundam gënal leen seen dund yàgg nañ ko ci qissatu talha ba xale ba méttee ñuy sànni ay fett mu ñëw jël dënnam teg ko ci kaw dënn yonent bi ne ko naxari duunaka ya rasulallah sama dënn bii sama delli baat bii na na la aar na fetti dal ci sama dënn te nga mucc xubay bi it nettali nañ ko bañ ko jàppee te yéefar yi di ko nattu ne ko fii nga nekk nii nga mucc yonent bi ñu jàppoon ko fi moo la gënal wala ñu téye la fii daggate la def la ay dog mu ni ñu daggate ma moo ma gënal yonent bi alayhi salaam dëkk di ko jam ci tànkam loola seenub yar ak xam gi ñu xam wàccu waay yonent bi seen dund loola moo leen yeggale woon foofu yàlla suñu boroom xamal ñu ni bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa am ay jeexit yu baree bari yonent bi alayhi salaam jàngale nañu jàngal nañ ci xadis ne ñetti mbir yi ku mu nekk ci yow da nga yëg bànneexu ngëm yàlla mbokk yi nit ki léeg-léeg muy dund ngëm yàlla fekk coono la koy dunde yeggagul ci xalaawatal imaan yeggagul ci yëg bànneexu nekk jullit yeggagu ci mi ngi mu xawama rek fu mu toll diggante alxaq wal baatil li nga xam ne bu ci nit ki yeggee dana yëg xalaawatal imaan mooy mu dem ba yàlla ak yonent bi gënal ko lépp lu dul ñoom yàlla ak yonent bi rek la teg ci kanamam lu dul yàlla ak yonent bi yàlla ak yonent bi ñoo ko gënal nit ki dem ba ku muy bëggati rek yàllaay tax mu bëgg la amul ku muy bëggati te leneen tax lu dul yàlla suñu borom nit ki dem ba bañ dellu ci kéefar gannaaw bi mu ñëwee ci lislaam bañ a dellu ci ay caaxaan akum po comme buñ ko waroon a yeew tàbbal ko ci sawara ni muy bajantoo ni muy bañee ku ko sànni ci sawara di def lim mën ngir bañ a tàbbi ci sawara soosu mu yegg ci bañ a dellu ci ak kéefar anam wu mel noonu anas ibn malik radiallahu anhu mu ni benn waaye dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonent bi yowmal qiyaam kañ la nit ñi léeg la ñu laaj laaj yoo xam ni daanare xam ko du bari solo yonent bi ne ko loo ko waajalal yowmal qiyaam kañ la li nga ko waajalal moo am solo mu ne ko man de li ma waajal mooy bëgg yàlla ak yonent bi loolu laa waajal yonent bi salaam ne ko al maru maa man ahab nit ki kat kam bëgg ñoom la yàllay boole yowmal qiyaam ci la Anas ibn Maalik wax ni kon man de bëgg naa Abu Bakar bëgg naa Omar yaakaar yàlla boole ma ak ñoom yowmal qiyaam ci kër donte jëfuma la toll ni seen jëf yu kawe yooyu mu ne bi yonent bi waxee loolu amuñu mbégte gannaaw bi ñu duggee ci lislaam mu raw mbégte moomu waaye mbokk yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari nit ñi dañ koy wax rek ñu di ko fittasu ñu di ko way ñu di ci joxe suñu xaalis ak yu mel noonu waaye ndax loola mooy dëgg dëgg bëgg yonent bi mbokk yi bëgg yonent bi dafa am ay mandarga yoo xam ni boo wootee ni bëgg nga yonent bi te taxawoo ci dëggal mandarga yooyu ci sa biir ak sa biti yow sa bëgg yonent gi googu des na te mandarga yooyu yooyu yëpp ay jëf la jëfi xol la ak jëfi cër li njëkk ci mandarga yooyu mooy nga gëm yonent bi dëgg-dëggi gëm gëm ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàlla sunu borom moo ko yónni mu yor risaala mooy yónnentub yàlla bu jëm ci jaam yi ni yàlla bëggee ku ko ni jaamoo ba boo ko ni jaamoo mu gërëm la moom yàlla loola yonent bi alayhi salaam la ko sant kon gëm ni li ñuy jaamoo yàlla ci loxo yonent bi la ko yàlla teg loola mooy gëm gi dëgg-dëgg gëm ni yàlla sunu borom moo ko yónni te yónnentu yàlla la yor moom lay wax ne fa aminu billahi wa rasulihi wa nuuri alladi anzalna te xam ne wallahi ma taamaluuna xabir gëm leen yàlla gëm yonent bi waaye gëm leer gi ma wàcce booleeg moom te mooy alquran ak sunna te xam ne yàlla lu ngeen def xam na ko bokk na ci gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam dëggal ko dëggal gu gu gu sax gu dogu ni lépp lu mu wax ci yàlla sama borom la ko jëlee waa yantiqu anil hawa du waxee bànneex lu mu wax rek yàlla sama borom moo ko digal gëm ni diine lislaam jëm ñu jàngal ak lim ñu doxal jëlee ko ci yàlla suñu borom ci ay nettali ci li xewoon démb ak lii xew ëllëg ne loolu rekk mooy dëgg lu nit wax lu wuuteeg loola la mu wax du dëgg loola digalu yàlla sama borom la ni yéen way gëm yi gëm leen yàlla gëm yonent bi gëm téere bi mu wàccee gëm téere bi ma wàcce man yàlla sama yonent ak téere yi jiitu te xam ne wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil axir yàlla mu ne faqad dalla dalalan baida ku weddi yàlla weddi ay malaakaam weddi téereem weddi yonentam kooka weddi yawmal qiyaam sànku na sànku gu sori kon gëm ni yàlla ko yónni yónnentub yàlla la yor li ñuy jaamoo yàlla ci moom lay jaar dëggal ko ci lépp lu xibaar loola lenn la ci màndarga yi bëgg yonent bi te mooy gëm ko ñaareelu màndarga bi mooy boo gëmee ba noppi nga topp nga topp ko ak teemoo ay ndigalam jéem a gëstu bu baax la yonent bi digle nga ne ci li mu tere nga bàyyi ko yàlla sama borom ne woon na yaa ayuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wala tubtilu amalakum mu ne yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla topp leen yonent bi bu leen neenal seen i jëf siyaaqu wax ji lu muy joxe mooy ku toppul yàlla toppoo yonent bi neenal nga say jëf moom la yonent bi wax ni kullu ummati yadxuluna aljannata illa man aba qila ya rasul allah wa man yaba qala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba mu ni sama xeet ñéppay tàbbi aljanna lu dul ku bañ ku bañ rek mënul dem aljana ñu ni ko yonent bi kan mooy bañ a dugg aljana mu ni ku ma topp dana tàbbi aljana waaye ku ma mooy kooku moo bañ kooku moo bañ a topp kon topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam waru gar la ci ab jullit ni alquran di diglee noonu la sunna yonent bi alayhi salaam di diglee ni alquran di teree noonu la sunna yonent bi alayhi salaam di teree yonent bi alayhi salaam nee na ala inni utitu lkitaba wa mislahu maa ala yushaku rajulun shabaan ala arikatihi wa yaqulu alaykum bi hada alquran fa maa wajadtum fihi min xalaalin fa axilluuh wa maa wajadtum fihi min xaraamin fa xar fa xarrimuuh mu ne xam leen ni dañ maa jox alquran jox ma lu mel ni moom te mooy sunna si leeral alquran mu ni maa ngi ragal benn bis benn waay ñëw lekk ba suur toog ci njawaanam naan yéen daal amu leen dara dul alquran lu ci dagan moo dagan lu ci xaraam moo xaraam yeneen yi moom comme ay buxaare ak ay muslim la ak ay nangam coow li dafa bari wér na ak wér loolu moom bu ci seen yoon nekk bokk yaakaar naa ni lii bi ko yonent bi wax yàgg na waaye jamono jii fitna mbooloo mu mel nii tasaaroo na ci àdduna fitna mbooloo mu naan ñun alxuraan rek la ñuy topp suñ doon nekkul ci sunna ndax sunna dafa jaxasoo am na ay wér naag ay wérul ak ay nangam kon nag bàyyi lool rek waaw waaw bàyyi loolu lépp rek nañ jàpp ci alxuraan rek waaw loolu bokk yi wérut bu dee amoo xam-xam jàngoo ba xam ni ñu tënkee wax yonent bi fi saxaaba yi jaar ak nañ doon jàngal fi atbaa yi jaar ak taabiuna yi fi boroom xam-xami lislaam yi jaar ci tënk wax yonent bi sanadan wa matnan fam jaar ba yegg ci yonent bi ak la wax ja ëmb nañ ci sonnee ak nañ ko seggee ba gëstukat yépp ñii jullit ak ñu dul jullit nangu ne ni ñu sàmmee waxu yonent bi amul waxu mbindeef muñ ko sàmmee ci kaw suuf amul yow nga tayal nangu woo jàng ndax day xam-xam bu jafe li mu laaj ci riwaaya ak jiraaya di lu jafe-jafe amoo tawfiixu jàng ko amoo tawfiixu xam ko amoo tawfiixu dégg ko te nga bëgg a wax ci diine ji bëgg cee nekk kilifa fa ngay mujj mooy wax nit ñi rek ne loolu amul solo ko kenn yittewoo waaye loolu ak réer la yonent bi alayhi salaam waxoon nañu ni loola ak réer la da koy tiit loola nag yegsi na topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ci sunnaam lim digle nga def ko lim tere nga bàyyi ko jéem a jub ci njubam takkoo yim digle ci mbooleem fànni jëf yi ak dundin yi ak jëflante yi loola mbir la moo xam ni dañ koo sàkku ci jullit ñépp yonent bi alayhi salaam nee na su ma leen digalee dara di ngeen ko def su ma leen teree mbir di ngeen ko bàyyi loola dëggal wax ji yàlla sama borom waxoon ni wa ma ataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yonent bi indi li ngeen ko jël lu mu leen tere ngeen ko bàyyi yonent bi digleem jëfe la tudd tereem bàyyi la tudd digleem dana ñëw ci ay anam yu baree bari tereem dana ñëw ci ay anam yu baree bari digle yonent bi dana ñëw ci def leen ñu def digle yonent bi dana ñëw ci jëf ñu gis saxaabi dana gis naa yonent bi def nangam digle bi yonent bi dana ñëw ci nit jëf dara ci kanamam mu bàyyi ko mu jëf loola ndax li ko yàlla sant mooy mu jottali risaalaam waru cee nëbb dara bu gisee nit jëf loo xam ni wuute na ak li yàlla digle yonent bi daf ko koy tere kon bu ko terewul mooy ni loolu mënees na ko def loolu mooy as sunna taqririya waaye ni ngi doon yonent bi ak tereem dana jëm ci mu tere mu leer dana jëm ci mu bàyyi mbir bañ koo def te fekk li taxoon ñu war koo def mi ngi fi te lu koy tere newu fi loola werante yu mën na cee bari waaye li wér moom mooy lépp lu yonent bi bàyyi defu ko te li taxoon mu war koo def am te lu tere mu def ko newu fi bàyyi googu mu ko bàyyi jubluwaay la ci sharia sharia du ko jublu bul wax ni rek bu yonent bi bàyyee dara su baaxee suñ xel nañ ko def ndax mën naa baax sa xel fekk du njub nit def na lu baax ci xelam ci kanamu yonent bi yonent bi aaye ko ne ko bul ko def ma jox leen ci misaal nit ñëw na ci kër yonent bi laaj suñu yaay Aïcha naka la yonent bi daan jaamoo yàlla suñu yaay Aïcha wax leen ci jaamu yàlla yonent bi mi yàlla baal bàkkaar mu njëkk ak yu mujj lu leen yéem ñoom lu leen yéem ñu xeeb loolu la seen bopp ne sagam yonent bi yàlla baal bàkkaar yu njëkk ak yu mujj mooy jaamu yàlla nii waa kon ñun lu ñu war a def kenn ki ne man damay julli guddi dootuma nelaw keneen ki ne man damay wóor bëccëg dootuma dog keneen ki ne man du ma sax yor soxna ba ba ci am njaboot gu ma yitteel damay jaamu yàlla rek am mbokk yi xanaa lii ci xel lu baax la lii ci wàllu xel lu baax la bi yonent bi ñëwee daf leen koo aaye dafa mer tere leen ko ne xam leen ni maa leen gën a ragal yàlla maa leen ko gën a xam ana axshaakum lillahi wa atqaakum lahu maa leen gën a ragal yàlla maa leen gën a xam yàlla waaye man damay julli guddi di nelaw guddi damay woor di dog damaa ami soxna yonent bi teg ci ne ku bañ sama sunna bokkoo ci man kon xanaa ñi bu doon xel mu rafet rek lañ topp li ñuy def lu baax la waaye ba ko yonent bi yégee xam na ni lii du mujj fu baax ndax nit la ngay jaar ba yegg ci ngërëmal yàlla sam xel rek doyu ci bu ci sa xel doyoon yàlla yàlla du yónni ay yonent gis nga siraatul mustaqim mën nga cee am misaal tey mi ngi mel ni bunt bu am code gis nga bunt bu am code nga xam dañ leen ni code bi ñeenti chiffre la boo ñëwee chiffre bi ngay bës ak bii ak bii ak bii mu ibbeeku yow nga amuk xër ba ni lépp lay bësandoo doxal ba ñëw bës lépp du ibbeeku boo ci bësee benn bàyyi ci des du ibbeeku kañ lay ibbeeku boo bësee ñeenti chiffre ba chiffre yi ñu la wax mooy tax mu ibbeeku gis nga dox jëm ci yàlla dafa bari ay gàllankoor bari yuy bif nit di ko xëcc di ko wàcce ci yoon wi gis nga liy tax mu yegg fa mu jëm mooy na xool ka yàlla wax ni kii fi mu jaar yoon wii laa bëgg mu ni coow jëm faa jaar te jéem a sax ca loola bañ caa ut leneen looloo gën a wóor ci moom bu ko deful nekkatul ci lu wóor lii nag misaal laa joxe rek waaye xam nga ni misaalu topp yonent bi ci biir diine ci dundu diine ak ni àdduna mel gën naa sax doy waar loola waaw moo gën a jafe loola kon jullit bi yitteem yépp moo war a doon fexe gëstu lan la yonent bi nekkoon ci njàngale mu ne ci lan la yonent bi bàyyi woon mu bàyyi ko loola bu ci nekkee lu loola xeebu xeebu ci ba ci nit ñi te du xeebu moos si ko am xam-xam loola mu gënal yàlla suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla bi mu ñuy bind binduñu ngir daa soxla ku ko jaamu sunu jaamu gi yàlla soxlawu ko sunu jaamu gi yàlla suñu borom soxlawu ko yàlla nee na ci hadiisu qudsi bu nit ñépp àndoon nekk ci xolu am xol bu mel ni xol wu ci gën ci jaam yi ñun ñépp bu ñu àndoon am xol bu mel ni xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aadama ba ca kay mujjee judd yàlla mu ni loolu yokkul sama nguur dara man yàlla bu ñépp àndoon am xol bu mel ni xolu firawna wala xolu iblis wala xolu ci yées ci nit ñi bi yàlla bindee aadama ba mujj jamono loola wàññiwul nguuru yàlla dara kon yàlla lim ñu bindee mooy di wax dox leen ñu dox taxaw leen ñu taxaw def leen ñu def bu leen def ñu bàyyi tilka xududullahi yooyu yàlla teg muy ay deytalam ñu yem ci loola jullit na bàyyi xel loolu kon du xër gi rek xër gi baax na waaye xër ci njub bokk na ci nit ki fiir ci diineem ci màndargay bëgg yonent bi bokk na ci fiir sa diine ak fiir ci lu yàlla tere doo ko dooleel doo ko dëgëral doo ci nekk ku ci nekk mbaa mu di ko tasaare nga taxaw jàmmarloog moom ba loolu tasaaroo loolu dafa bokk ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fiir ci diine ji mu indi te xam ni diine jii ngir bu taxaw moo jaroon ñu dóor jaas yonent bi mbokk yi diine ji ngir mu taxaw moo jaroon ñu dóor jaas yonent bi ba deretam tuur kon bu taxawalee diine ji ba ni mat na al yawma akmaltu lakum dinakum yàlla wàcc ci moom loola wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum is- islaama diinan diine jooju nga xam ni moo jaroon yonent bi ñu tuur deretam bokk na ci bëgg yonent bi sàmm ko ba kenn du ko jalgati moo tax léeg-léeg fiir gi dana yóbbu nit ci sax buñ ko comprendre wut ñu mën koo àttee ku tar mbaa ku bañ keneen fekk loolu amut de dafa xam ni diine yàlla ji dañ ko war a sàmm te li koy sàmm mooy bàyyi ko dem meloon rek bàyyi ko dem meloon rek moo koy sàmm bokk na ci bëgg yonent bi ñeenteelu tomb bi mooy wekk ko ak màggal ka mbokk yonent bi dañ koy wekk yonent bi dañ koy màggal yàlla moo wax ni inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran li tuminuu billahi wa rasulihi wa tuazziruuhu wa tuwaqiruuhu wa tusabixuuhu bukratan wa asilan yàlla yoon yonent bi ngir mu nekk seede ci nit ñi ci kanamu yàlla waaye nekk kuy bégle nekk kuy xubbe mu ni ngir ñu gëm yàlla yàlla yoon yonent bi ngir ñu gëm yàlla yonent bi ñuy wax ko nit ñi gëmee yàlla waaye gëm yonent bi ci yonent gi ko yàlla yónni ak risaale bi mu ko jox waaye ñu dimbali ko ndax abbas mu ni li tuaziruhu wa tuaziruhu ay li tansuruhu waaye ñu màggal ko it waaye ñu wekk ko yonent bi dañ koy màggal dañ koy dimbali dañ koy wekk sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee ñu sàbbar yàlla suba ngoon yàlla saa borom wax jullit ñi ne leen fexe leen ba bu leen jiitu yonent bi ci dara bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqu llaha inna allaha samiun alim bu leen jiitu ci dara looy def rek xaaral ba am ci ndigal yonent bi alayhi salaam nga def ko loolu moo gën ci yow yàlla wax ni bul yëkkati sa baat ci kaw baatu yonent bi yëgal ko saxaaba yi waaye ba léegi ku dem siyaare ji bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ lay tere nga wax ci kaw loola umma bi dañ cee dëppoo wàcce baat ci xabru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir jëfee ko aaya yàlla bii wax ni bul yëkkati sa baat ci kaw baat yonent bi loola umma bi dañ cee dëppoo waaye bokk na ci bañ a yëkkati sa baat ci kaw baat yonent bi yonent bi wax ba noppi nga jël jeneen wax teg fa ak wax ku mën doon mbokk yi ñeenti tomb yi ci tomb bi bëgg yonent bi la bokk fonk googu yegg na ci di woo yonent bi tur yi ko yàlla sama borom tànnal muy ay mission an nabi ar rasul yonent bi sax sayid la mooy sayidu waladi aadama ala al itlaq ñépp mooy seen sang ke ñëwoon ne ko yaa sayidana wabna sayidina wabni sayidina mu ne ko qulu bi qawlikum kooku wax ji dafa ëpp rek ndax dem ba naan sa baay mooy suñu sang baay yi sa maam mooy seen sang loolu moom wax jooju mën na ca bañ a bokk waaye moom yonente bi ci jëmmam moom moom huwa sayiduna sallallahu alayhi wa sallam waaye nag lam ca yokkoon moo xawoon a nuru ak tagg rek te yonente bi ci buntub tawaado wàcce boppam gi ko yàlla digal ne wax fi janaahaka lil muminin ci la terewoon waaja loolu ndax léegi génn na ci diina mi ngi dugg ci wàllu aada mu ne woon yaay sunu sang loola dëgg la waaye doomi sunu sang doom sëti sunu sang loola moom da ngay daal dugg ci aada génn nga ci diine léegi moo tax yonent bi tere ko loola kon di màggal mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam dayoom ci jaami yàlla yi xam cëram ci xeet wi bañ ci wax ci moom comme ki wax sa morom léeg-léeg da nga dégg sax nit zab zabban ani diin di bëgg a sàmm diine ak sàmm tawxiid mu wax ci yonent bi loo xam ne sax yellut yonent bi mën naa wax ci boppam ne Fatima jaamul yàlla xamal ni mënulu ma dara fa yàlla loolu wax yonent bi alayhi salaam waaye yow jullit bi waare bul taxaw nga ni kanamu yàlla yonent bi mënulu fa kenn dara ah loola moom mën naa ñàkk ndax am na lu fa yàlla jox cër ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu di ko taxawu jaam yi ak xeetam ndax li waawul xamd la ko koy may mooy mooy dem bu kenn ñi me wala dem ci yàlla ñaan ko mu ñëw atte jaami yonent bi dem ñaan yàlla mu atte jaami kon xanaa loolu dara la cër wu rëy rëy la xeetam wuy jéggi siraat bu daan yàlla ummati ummati xeet way jéggi xanaa loolu dara la wax di ko yàlla wax ñu ràmmul ñu ràmmule la waa xëy na nag boo ni woon du fa mën dara lu dul lu ko yàlla sama borom jox cib cër waaw loola moom mu nekk dëgg ndax nga wattoo ko ñi ëppal ci moom ba di ko jox day dayob yàlla suñu borom waaw loolu moom ci tawxiid la bokk waaye waxin wi dafa war a ànd ak teggin wax ci yonent bi dafa war a ànd ak teggin saxaaba yi ñu amoon teggin lañ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu taxawaan di wax sax dañuy mel ni picc moo tag seen bopp yu bëree bëri bu ñu ko doon indi ci ay am si la ci fonk gi saxaaba yi fonk yonent bi loola loola loola du jeex lu bëree bëri la ñaan yàlla defal ñu ci tawfiq aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril mu'minin alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala mbokk yi bokk na ci màndargay bëgg yonente bi alayhi salaam di bari loo julli ci moom yàlla sama borom moo ñu digal ñu bari lu ñuy julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ji mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moom yàllaa ki malaaka am ñi ngi julli ci yonente bi yéen jullit ñi julli leen ci yonent bi te sëlmal ci moom yonent bi asalaam wax ni ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon waxoon Kaab ne ko boo fanaanee di julli ci man dootoo am soxla su fajuwut kon julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay ngëneelam kenn xamul lu mu toll ki gën a yey ci moom yowmal qiyaam mu ni mooy ki ëpp lu ma julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam xadis bi at-Tirmidi moo ko génne mu ni xasanun saxiix kon yonente bi alayhi salaatu wa salaam julli ci moom loola ci màndargay bëgg ko la bokk mu ni torox na koo xam ni torox na koo xam dañ maa tudd ci moom te julliwul ci man boo déggee ñu tudd yonente bi waxal sallallahu alayhi wa sallam mu ni ki nay dëgg ki nay mooy ki ñu tudd ki ki ñu ma tudd fa moom te julliwul ci man kooku mooy ki nay mbokk yi bokk na ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam assaayu fi jamii kalimati ummati def sa yitte yépp ngir benn le kàddu xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam loola ci bëgg yonent bi la bokk ndax yonent bi ummaam ñooy yitteem yàlla sa borom newoon ko xamal ne ñi tàqale seen diine ne alladina farraqu diinahum wa kaanu chiaan lasta minhum fi shay innama amruhum ila allah summa yunabbiuhum bima kaanu yafaluun mu ne ko ñi tàqale seen diine def ko ay pàcc-pàcc ku ne ku nekk am foo jaar ne maa ne ci dëgg xamal ni bokkook ñoom dara lasta minhum fi shay seen mbir fa yàlla la buñ ñëwee yàlla sama borom xibaar leen liñ doon jëf dellu tere jullit ñi ne leen wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahu albayinat wa ulaika lahum adabun adim bu leen mel ñii ñi tàqali ko wuute ginnaaw bi leen njub gu leer di kële ñooñu am nañ bëggal mu metti yonent bi salaam wax ne yàlla bëgg na ci yéen ngeen jàpp ci bu mu yàlla gi bëgg na ci yéen ngeen jaamu ko bañ koo bokkaale waaye bañ na ci yéen ngeen tàqali ko kon jullit ñi buñ tàqali ko mbokk yi léeg-léeg mu am ay masaayil yu ñëw ci jullit ñi yoo xam dañ ciy warante warante wu metti ba mu jur xuloo ŋaayoo fekk loola jaru ko l'islam yonente bi alayhi salaam jàngal nañu ne bu mbir demee ba yegg ci werante nga xam ne yow li nga daan wax ngir yey keneen moom jot na waxtoom ba indi lum la tontoo nga xam ni nekkatoo ci jàngale nekkatoo ci leeral waaye da ngaa mujj nekk ci werante yonent bi nee na amul wenn askan woo xam ni wenn xeet woo xam ni nattoo nañ leen di werante ci seen diine lu dul xañees na leen barke xam-xam mooy dootuñu jëriñu jullit ñi seen masala yi ñuy wuute bari na waaye masala bu nekk buñ ci wuutee li jaadu mooy kenn ku nekk yëg ni kuréelu jullit yi wuutewul ak man ngir dafa bañ lislaam ndax bu ko bañoon du nekk jullit ngir dafa bañ yonent bi mënta nekk li am mooy dafa jàpp ni nii lay gën a jaamoo yàlla nii lay gën a toppee sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mabda la mooy tax jullit ñi ànd nekk benn bu ko defee nag yi ñu wóote ci seen biir ñu bañ koo nëbbante buñ toogee di ko waxtaane misaal mi ñu ciy joxe mënta weesu lii xew xam ngeen ni fan yii ñi ngi ci weeru juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi juddu yonent bi julli ñépp la war a bégloo ndax mooy juddu gi nga xam ne bi mu juddoo ci la leer tàkk ci àdduna ci la yaakaar dellusiwaat ci la ñu am xibaar ne yonent bi war a soppi àdduna ni muy doxe nit ñi dem ci jaamu yàlla wéetal ko bañ koo bokkaale yonent boobu judd na mbokk yi loolu ku mu bégloowul loolu jullit ñépp la bégloo jullit ñépp a ci kontaan léegi nag mu des jullit bu kontaanee ci dara nan la koy wanee bu jullit ñu wutee day ci masala bi foofu rek lañ ci wute man su ma kontaanee ci julli yonent bi ci julli yonent bi naka laa koy wane kii ne man de su ma kontaanee sa waajur juddoo bis bi mu juddoo bu ñëwee danaa ci bég rey ci gàtt saraxe ndax sama bay da ci juddu woon waaw waaw loolu de xel mu rafet nangu na ko kii ne déet est-ce que yonent bi amul nu mu waxee woon ni bu juddoo nañ ko màggale noonu nga gëstu ba ni ah kay yonent bi nee na altine ji may woor dama koy woor ndax ci laa judd ci la ma yàlla yónni yonent bi woor altine ndax ci la judd ci la ko yàlla yónni mooy ñaari mbégte yu daje mbégteem juddu gi ak mbégteem yónnent gi ci benn bis yonent bi woor ko bu doon woor bisub juddu yonent bi da koo yoonal ci jëfam jooju kon saxaaba yi liñ ciy déggee mooy kon bis bu waaye juddoo ci na ko woor waaw loolu lu baax la waaye ñaareel ba tax saxaaba yi dégg wuñ ko noonu ndax mooy yónnent gi te moo koy yónnent googu yàlla saa borom dafa rëy ci moom ba bis boobu moom yàlla da koo màggal ndax judd gi ñëpp a ci yem qul innama ana basharun mislukum bu dee judd gi ñun ñëpp dañoo judd waaye li ma wutee léegi yéen mooy yàlla daf maa wax yu ne ma ab yonente nga wàcce ci man alxuraan gis nga bis boobu yàlla da koo màggal inna anzalnaahu fi laylatil qadr ne guddi googu moo gën junni weer digal julli ñu ngi def ci ay jaamu yàlla yonent bi boole judd ga ak yonent googu moom màggal ko ci woor kon ki yem ci loolu wax ni man de nii laa ko dégg nii laa koy jëfee kooka kenn sañu koo yedd laa man de nii laa gis yonent bi jëfee ko saxaaba ñi lañ ko jëfee taabiyoon ñi lañ ko jëfee imaam malik ñi la ko jëfee buxaari ñi la ko jëfee muslim ñi la ko jëfee ñi ma xam ñaar ñi lañ ko jëfee kon fii laa yem jullit bi wax loolu kenn ñemewu ko yedd jullit bi dafa wax ni man it damaa bëgg a feeñaat rek sama mbégte ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bëgg a teral ay nit wala ñu waxtaanee dund yonent bi ak jëfam bu dee xam-xamam foofu la toll njàngaleem foofu la toll amatu naas yi koy déglu foofu lañ toll loola ñuy def la nga ca gën a mën a jàpp mooy seen yéene rek waaye munoo toog mukk bëgg a yedd ñooñu yeddin woo xam ni aw xas lay mujjee doon ak i saaga ba jullit ñi tàmpaloo di saagante loolu yonent bi gërëmu ko gis nga bàyyi woon loolu yëpp am te fekk ñu bokk ay aslu cosaan ci gëm yàlla bëgg yonent bi ak topp ko te nangulante suñu wuute yii di ko yóbbu ci déggin wi gën a rafet loola moo gënal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu topp wuute yii bay rayante suñ biir di saagante na ku nekk jéem rek ci yéeneem mu comprendre boromam te ñaan yàlla nag ñun ñëpp ñu dajeek ngërëmal yàlla ku nekk la nga jàpp ni moo gën a jege jege ngërëmal yàlla bul tàyyi di ko jàngal nit ñi yéenante aljana yooyu ci la jullit ñi tabaxee seen diggante waaye bu ñu ko deful li xew tey te moo tax ñu baree bari dellu gannaaw ci yu baree bari yu ñu daan wax mu dem ba indi noonoo ci biir jullit ñi mooy tey yegg nañ ci nit mën a gàddu ngànnaay jëmale ko ci mbokku jullitam rey ko ba noppi wax allahu akbar ku doon dàq lëg ba dajeeg gaynde da ngay dëpp da nga doon dàq tënk nit ñi ci kitaab tënk nit ñi ci sunna wax lu baax nañ ci tënk moo gën dëgg la moo gën waaye bu naree jur nit ñi bañante bay reyante ci turu diine te tey am na ci monde musulman ay jullit yuy reyante ci turu diine loolu nag jàpp na taxawaat nag xool mbooleem masaa'il yi wuutale jullit ñi ñu xool wan taxawaay lañ ci am ba jullit bu nekk mën a xajoo sa morom gis nga loolu buñ ci yeggee réussir nañu te buñ dajeek yàlla yàlla danañu gërëm ci loola buñ ci yeggul nag tuddee ko irja maa ngi tuddee ko leneen ba mu jural jullit ñi fitna bañ a reyante boo dajeek yàlla da nga ko layoo nañu def yitte ci benn li xeetu yonent bi alayhi salaam xam ne li ngay wax bennoo ci dëgg ku nekk da ngaa jàpp yenn ci dëgg kon li fi mën a nekk mooy jéem a waxtaan jéem a lenkante jéem a dëppoo ci ëpp solo ji waxtaan nag ci ñu wute loolu rek mooy am solo waaye boo dee bennoo ci dëgg ki nga wuteel pour moom ci dëgg la nekk pour moom yow yaa nekk ci bidaa yow yow da nga nekk boo dul sunna te léeg-léeg moo lay ba xaw laa bëgg a joxoñ baaraam kon nag nañu ànd ak dal ànd ak teey ku nekk xam ni mawqif bi nit di jël ci ci dislaam ngir jaamoo ko yàlla dafa yaakaar am ci ngërëmu yàlla ñu bañ di xiiroo yonent bi tere woon na ko bañ di ŋaayoo bañ koo def animation jaru ko na ku nekk rek def li nga jàpp ni ci ngay am ngërëmal yàlla la nga wëreeg sa mbokk jullit ngeen waxtaan ci ñaan yàlla defal ñu tawfiq yàlla defal ñu tey rek aafiya yàlla saxoon siraatul mustaqim yàlla def ñu jullit ñoo xam ne dañoo ëmbal mbooleem jullit ñi mbëggeel ak cofeel ëmbal jullit ñi mbëggeel ak cofeel di leen ñaanal yàlla njéggal képp ku toog wax ne yàlla na yàlla jéggal mbooleem xeetu yonent bi yàlla bindal la tuyaaba ci kenn ku nekk ci xeetu yonent bi xanaa nit doo ko ñaanal yàlla yàlla jéggal ko ba noppi di ko yéene leneen kon nañuy fexe di ñaan loola yàlla jéggal xeetu yonent bi yàlla yërëm leen yàlla gërëm leen yàlla tàbbaleen aljanna allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adab annar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله